xaaral xam nga ku nekk ci accident su nekkoon nekkoon Tamba wala ñu nekk Kaffrine xam nga seen nga jël leen Dakar yu ñu ci jege sa ay mbokk amul sax matériel équipement merci beaucoup xam nga da nga non loolu ñoo ngi xamante xam nga xam nga xam nga xam nga kii euh, Farba man waxuma côté évacuation bu normal xam nga boo euh, jógee si accident ci saa si da ngay xaw am traumatisme bu doon lu gën médecin yi duñ la diggal que nga transporter malade bi dañ lay naan kii da nga koy stabiliser mais lan moo tax ñu évacuer leen ici à Dakar parce que médecin yi Macky Sall leen fa jiitu. Mm-hmm. hôpital boo ko tabaxee ba pare. Euh, déggee honorable député Abdou Mbow qui euh, nee na seen famille ci boppam ñoom ñoo réclamer à ce que euh, euh, maladie ñëw fii ci Dakar pour être. famille famille du réclamer. médecin bi mooy xool ma ne moo gën sànni leen fële du nga xam nga lan moo tax bu possible loolu. parce que hôpital bi d' accord baax na rafet na macha allah suñu alal la Macky Sall bu mu ciy namoo. 9 ans nga dafa benn hôpital xaw ma ñaari hôpital. doy na gàcce hôpital bi laata Macky Sall di ñëw bu ñu jëloon personnel bu fay dem signal leen décret ni leen yéen a fay dem ñu jiit fa Macky Sall di faj mu opérationnel kon du ñu jël kenn di ko évacuer mais hôpital bi di nga déggaat ay reportage fii léeg un mois wala deux mois ñu ne la nekkul non c'est pas du question de yàq far du question de yàq xam nga président Macky Sall d'accord nga ma daaneel foofu d'accord léegi léegi léegi léegi léegi si loolu laay daanelee en fait xam nga tey sëñ Ba nga toog di wax ci hôpital yu Macky Sall réalisé def projet bi def conception bi financé ko ba inauguré ko est-ce que am na sens ci moom mi nga xamante ni xam na ni lii moom moo ko defar mais au même moment am na benn quartier bu dee ci côté bu amul ndox. moom mën na ko bañ a xam ñun dañuy fàttali Macky Sall que ni au-delà de ses réalisations am na ay réalisations yu mu jot a def. moom xam na ko. mais am na lu mu xam baax na nañu yokkal. waaye bul xarabal ñu si parce que moom xam na ah? ko parce que moom. mi ngi baax na. waaye am na leneen lu ñu bëgg na ko président bi def. noonu la ñuy waxee waaw waaw d' accord. mais am na ñoo xam noonu la ñu siiw am hôpital tey. d' accord man bu ma bu ma naree jàng ji wax dina jàng ji feneen wax mais pas ci yow. alors euh, li may wax mooy. moom day xuloo moom day naggasante xaw ma lu ma def xaaral ma la reyee sa taaw comme on dit en wolof. Euh, jamais y' a y' a aucune animosité dañuy waxtaan nii rek. ma lay wax rek parce que damaa gis que yow. alors oui d' accord rek. Euh, Euh, par contre je te le permets pas ngar ngari bul ma ko ah, waxaat non bul ma waxaat ah. ngar ngari j'ai beaucoup de respect non non non j'ai beaucoup de respect pour toi ah. bul ma waxaat ngar ngari je te le non non non non non euh, euh, non non yow nga wax bu ñaaw ma toog déglu la tontuuma la ma di la wax nga am looy wax alors li man maa wax ngar parce que yaa fi wax loo xam ne am na ñoo xam dañuy tëb dóor la te te ma la waxuma la dama laa mais far ma ne fii kenn ah. mais mais xam nga wax ma loo xam ne fii. waaw xam nga yow euh, moo tax bu ma euh, waxee. bu moo tax ma mooy li ma li ma doon wax léegi rek si sama li ma doon wax léegi sama sama biir en fait. que ni lii moo tax lii moo waral en fait que Abdoulaye Wade échoué. parce que euh, genre personne yi ñu jël leen def leen ministre. alors euh, non non s'il te plaît. s'il te plaît ba muy bàyyi ma bàyyi ma yeggal li may wax. bàyyi ma yeggal li may wax. mais on va pas d'accord mais nee na bàyyi ma yeggal li may wax. du ay détail du ay détail du ay parce que man ngar ngar yi mën nañu waxal donc c'est pas. oui tu lui as d'accord mais il l'a répété. alors genre nit ñi bu ñu nekkee ay ministre de la République. régime boobu mënuñu xaar ñoom ay résultats yu combat dangay daw ñëw sama biir salon toog. alors dañuy sa salon gàddu sa livre yow. sa salon yow yow yaa ma ni. ma indil la benn man yaa ma woo. Farba Senghor yow daw ba ñëw li ñuy def dañuy benn. Farba Senghor dañuy benn ñaar ñëw ba sama salon daw ma ñëw ba ñëw toog. mag du kàcce ne ma mosuma gis lii. billaahi wallaahi. taala nga ni mosuma gis lan. nga ñëw toog non pharmacien nga yow mag bi yàlla nga yow. xaaral xam nga ku nekk ci accident su nekkoon su nekkoon Tamba. wala ñu nekk Kaffrine ban seen mbokk ma la fay fekk. xam nga c'est nga jël avion leen Dakar ñu jege sa ay mbokk. amul merci beaucoup xam nga da nga am ñoo nga xamante dugg na xam nañ loolu. xam nga xam nga xam nga kii euh, Farma man waxuma côté évacuation bu normal xam nga boo euh, jógee si accident ci saa si dangay xaw am traumatisme bu doon lu gën médecin yi duñ la diggal que nga transporter malade bi dañ leen naan kii da nga koy stabiliser mais lan moo tax ñu évacuer leen ici à Dakar parce que médecin yi Macky Sall leen fa jiitu. Mm-hmm. hôpital boo ko tabaxee ba pare. Euh, déggee honorable député Abdou Mbow qui est quand euh, nee na seen famille ci boppam ñoom ñoo réclamer à ce que euh, euh, maladie ñëw fii ci Dakar pour être. famille famille du réclamer. médecin bi mooy xool daal une heure de temps. famille du rek médecin bi mooy mais xam nga lan moo tax bu possible. moo gën sànni leen fële du ñu parce que hôpital bi d'accord baax na rafet na macha allah suñu alal la Macky Sall bu mu ciy namoo. neuf ans nga defar benn hôpital xaw ma ñaari hôpital doy na gàcce hôpital bi laata Macky Sall di ñëw bu ñu jëloon personnel bu fay dem signé leen décret ni leen yéen a fay dem ñu jiitu fa Macky Sall di faj mu opérationnel kon du ñu jël kenn di ko évacuer mais hôpital bi di nga déggaat ay reportage fii un mois wala deux mois ñu ne la nekkul non c'est pas du question de yàq far du question de yàq xam nga président Macky Sall d'accord ma daaneel foofu xam nga feeg feeg baax si loolu laay daanelee en fait xam nga toog di wax ci hôpital yu Macky Sall réalisé def projet bi def conception bi financé ko ba inauguré ko est-ce que am na sens ci moom mi nga xamante ni xam na ni lii moom moo ko defar mais au même moment am na benn quartier bu dee ci côté bu amul ndox. moom mën na ko bañ a xam ñun dañuy fàttali Macky Sall que ni au-delà de ses réalisations am na ay réalisations yu mu jot a def moom xam na ko. mais am na lu mu xam baax na nañ yokkal. waaye bul xarabal ñu ngi si hôpital moom xam na ah? ko parce que moom. da nga naan lii baax na. waaye am na leneen lu ñu bëgg na ko président bi def. noonu la ñuy wa waaw waaw d' mais am na ñoo xam ne noonu la ñu siiwoo am hôpital tey. d' accord Farba man bu ma bu ma naree ji wax dinaa jàngi ji feneen wax mais pas ci yow alors euh, li may wax mooy. moom day xuloo moom day naggasante xaw ma lu ma def xaaral ma la ree sa taaw comme on dit en wolof. Euh, jamais y' a y' a aucune animosité dañuy waxtaan nii rek. non wax rek parce que damaa gis que yow. alors oui d' rek. Euh, Euh, par contre je te le permets pas ngar ngari bul ma ko ah, waxaat non bul ma waxaat ah. ngar ngari euh, j'ai beaucoup de respect non non non j'ai beaucoup de respect pour toi ah. bul ma waxaat ngar ngari ça je te le non non non non non euh, non nee naa s'il te plaît je te le permets pas non yow nga yow nga wax ma fi wax bu ñaaw ma toog déglu la tontu ma la ma di la wax nga am looy wax alors li man parce que yaa fi wax loo xam ne am na ñoo xam dañuy tëb dóor la te te dóoru ma la waxuma dara dama laa toog. mais far ma ne fii kenn du dóor ah. waaw donc mais pourquoi ma naan ah, du ma ko waxati. d'accord waaye xam nga wax ma loo xam ne xam nga yow ministre euh, moo ah, ah. mooy li ma li ma doon wax léegi rek sama li ma doon wax léegi sama sama biir kàddu en fait. que lii moo tax lii moo waral en fait que Abdoulaye Wade échoué parce que euh, genre personne yi ñu jël leen def leen ministre euh, non non s'il te plaît s'il te plaît ba muy bàyyi ma bàyyi ma yeggal li may wax baay ma yeggal li may wax waaw waaw d'accord mais nee na bàyyi ma yeggal li may wax du ay détail du ay détail du ay parce que man ngaar ngaar yi mën nañuy waxal donc c'est pas waa d'accord mais il l'a répété genre nit ñi bu ñu nekkee ay ministre de la République régime boobu mënuñu xaar si ñoom ay résultats yu boobu dangay daw ñëw sama biir salon toog. alors dañuy ma ne yow sa euh, salon ma gàddu sa livre yow. sa salon yow yow yaa ma ni. ma indil la benn livre man yaa ma woo. Farba Senghor ba sama salon ñëw toog. waa taxawal xam nga li ñuy soog dugg ak télévision yi ak li ñuy def dañuy benn. Farba Senghor dañuy benn yaar ñëw ba sama salon daw woo ma ñëw ba ñëw toog. mag du kàcce ne ma mosuma gis lii. billaahi wallaahi. taala nga ni mosuma gis lan nga ñëw toog non pharmacien